internet yu Dakar Actu nuyu nañ leen amaat nañ mbégte àndaat ak yéen si entretien yi ñuy amal saa su ne si Dakar Actu TV tey nag amaat nañ mbégte bu baax amaat beneen invité invité de marque si on se permet de le dire parce que ku ko wax si wàllum euh, politique réew mi di ko tudd waaye tamit ku ko wax si wàllum agriculture tout le secteur horticole di ko si tudd kooku mooy euh, docteur Makumba Diouf docteur Makumba Diouf également

Hmm. merci hmm. D'accord. docteur situation oblige euh, actualité oblige autant pour moi Le contexte est pandémie Covid 19 est ce qu'il y un impact surtout si secteur bi horticole amoon na d'ailleurs bu dee ci yëngu agriculture de manière générale. maanaam mbéy mm-hmm. rek. Mm-hmm. ñun horticulture ñun rek bu fi may waxagum te yàlla na yem foofu. Mm-hmm. d'ailleurs lu ci bëri saafara wu na. ñun rek la mas mi laalagum laal buy mën a tudd. lu ko waral. mooy bii mbas mi di dikk. ci le 2 mars dernier. dafa fekk ni.

bu étudiants yi nekk ca Wuhan ñëw. Mm-hmm. coono yi bëri woon na. Mm-hmm. te ñoo commencé jox ko dëkk loolu gis-gis moo koy def. Mm-hmm. mu jóge te ne nañu dakkal daje yu mag nga gis ne ci lañ jaaroon gàmmu yi. mooy série de mesures yi ñu jëloon. très bien ba soo ko yegg nag. ci état d'urgence. ak couvre-feu loolu ci li ci mujj la. kon daal ci gàttal xëy na dellu nañ ginnaaw ci loolu. ndax situation moo ko laajoon. waaye bi.

te comme lu tooy la. Mhm. nekkul lu ñuy denc ci buubaay. lu ñu mën a denc lu yàgg. très bien te de dencukaay yi. Mhm. xëy na yaatugul benn yaatuwaay bi. Mhm. mu commencé di yàqu. ñu yëglu ci président de la euh, man comme yow comme Sénégal yëpp xam ne ne ku jege askan wi la. ku faral di bàyyi xel liy jege ci askan wi la. rawatina ay jafe-jafe. wala ay xaar yu ñuy xaar bañ ko yëkkatee rek mu ne.

kon xam nga bu ñu waxee ñu def ne 69 milliards ci aide alimentaire. Mhm. man defe naa dañ ci yokk benn milliard quand même. kon joxe na 70 milliards. loolu mooy li dëgg. mu doon saafara nan la doonee saafara. Mhm. ko bopp. Mhm. soxla wu leen dimbale. nit ñooñu comme bay horticulture dafa am ñam. dafa am revenu. dimbale nañu seen yeneen ñi bopp. fay nañu seen bor ci banque yi. mais surtout daw la.

dañuy dañuy fa ak naataangoom. Mhm. Euh, monsieur le ministre. Oumar Gueye bi yor collectivité territoriale nekk maire Sangalkam. Mhm. ak acteur bu partout yëpp. nga yëg ni. Mhm. lancé nañu tey officiellement exportation mango nga xam ne moo ëpp. ci li ñuy exporté. daanaka dina dem ba ci cent vingt deux mille tonnes yu ñu def daaw jéeg. vingt et un mille tonnes euh, mango kon euh, bu fi ñu tollagum laalagul.

Il y a des gens qui ont exporté. président jox entreprise pour hmm. pour seen ndëgërlaay. Hmm. pour ñu bañ a loof. Hmm. ba sen liggéey jaar fi dina aussi entreprise yo xamné ñu d'accord nous avons toujours un ngi plan de résilience économique bi mais plan bi bëri na docteurs de docteur parce que am na ñu bëri que ni ils n'ont pas été pris en compte mais yow nous abord ce secteur d'abord est ce que euh, tous les acteurs du secteur horticole euh, ont nañ leen en compte sur plan de résilience économique bi. man loolu laa ko jàppee ndax ñi yëngu ci affaire horticulture. Hmm. ay béykat lañu d' abord. Hmm. ñu ngi ci taax yi ci ñu ngi ci kaw. président def na aide alimentaire. bu soixante dix milliards ndax soixante neuf la woon. wax léegi ak dix milliards ak benn milliard bu ñu ci yokk. pour légumes yi jëm ci yokk ci aide alimentaire bi mais kon secteur horticole exploitant horticole yi. maanaam ñiy béy mbéyum dër wala mbéyum noor lañ ko jot nañ seen wàll. ci aspect boobu. Hmm. nee entreprise yi nga xam ne ñoo ëpp doole. ci horticulture. Hmm. ñoom it ay exploitants horticoles ñoo leen yore. Hmm. kon entreprise yi nga xam ne bindu nañu. Hmm. génn nañ ci informel ràññee nañu leen. te gox yi ñuy yëngu. ñu transmettre seen information ministère des finances. yàlla na ko fa ñu war a jàllale. ñooñu it entreprise yi président génnee. ci biir mille milliards yi. pour ñu leen ak yooyu aussi. dinañ ci jot kon su ma doon tontu. dama naan waaw. acteur horticulture xaj ak seen. amul xaj ak seen. Hmm. amul kii APR la bokk kee. réew mi la bokk. wala kële moo ngi PDS. xam nga waaw. loolu wax bu yàqu la xam naa ne sax. Hmm. <laughs> Euh, yi. Ah. mais mais si Sénégal lañ nekk de xam nga Sénégal moom docteur fii mën mën nga fi gis lu ne. waaw mais waxantukat yi. dafa bari daaw la. te si ñoom nga foree wax jooju xam nga ne. Hmm.

ñaari junni yi jël la dox ak mm-hmm. ak ñetti téeméeri jël. Mm-hmm. ak fukk ak ñeent deux mille trois cent quatorze ménages. Mm-hmm. ñu def ko cérémonie bu leer processus d' bu leer. soit bu nga xam ne amul benn jafe-jafe. te noonu la amee ci commune Sénégal yëpp. d' accord ku fi bëggee yëkkati wax rek. xamal ne leneen moo lay wax loo mooy eh, li ma faral di wax rek. genre ay bukki muuroo dina béy da cee bari ci jamono yi. d' accord mais macha allah président Macky Sall ak liggéey bi mu def. Hmm. mais nag gëm ni. incha allah yàlla yàgg nañu ko fay. waaye dina ko fayaat. li ci wax mooy. dama ko faral di wax ne bu dee day jaay baax rek. dina xam ne yàlla gën a baax foofu. njëlu yi mu dimbali. ba tey ñu am doole yi. mën a béy. ndax loolu ci la bokk. mooy dimbale leen ba ñaari teey yëpp. Mhm. yi mbay laal mu jàppale ci béykat Sénégal. Mhm. y ñi def ci horticulture. Mhm. ñaari teew yi lan mooy teewee. loolu ñoom ñoo ko war a defal seen bopp. mooy béy ci waxtu. Euh, mooy mooy teele d'abord teele. dimbale leen ci ndax jiw yi dem na. yokk na vingt milliards ci budget bi. mu nekk soixante milliards. jiw yi dem na engrais bi dem na wax ji bari na. du ci ñàkk.

xewloo ba ba rek. Mhm. mën a am doole yi ak kattanu. Mhm. dem bay tool yi. dem tool d'accord ba ca des nag beneen tee bi. Mhm. mooy teere. d'accord loolu nag béykat yi la war. te yaakaar naa ne wóor ma ne. dinañ ko def moo tax ma ne. gëm naa ni. am na jot bu rafet ni yàlla dina ko ci. fekk si wan ko ne ko maa gën a baax. ci naka. ci indi ñu macha allah nekk bari ndox. nekk ndox mu sedd. mu meññ. lu bari ba naataange bi nga xam ne.

juillet bi wala août 2020 mille vingt lay commencé ba décembre 2021 mille et un. Mm. maanaam at. Mm. ak bu manqué tuuti genn wàll. Mm. te ministre de l'économie du plan. et de la coopération. ministre Amadou Bot. and koog ay natangom yu mel ministre de l' agriculture. yu mel ni yi nga xam ñu nek ci tourisme. d'accord di ci liggéey. xam jox nañ doole bu baax en tout cas xool nañ bët. bu baax. horticulture.

alerte alerte. am na am na ci. Mhm. jëm ci sama mbokku élu yi lu koy. mooy maire yi. mooy maire yi. Mhm. mooy ku ne xam nga ni. Mhm. suuf si bu doon alal la. alal bu ñu bokk la ñun ñëpp yem ci. mu lekk ci loxoy nguur. nguur délégué ñu. Mhm. saytu suuf soosu. Mhm. wax ñun ni ñu ko yépp que nekk ci ay këyit. Mhm. ay loi ak ay règlement. kenn du nekk sa bureau di xalaat di njort. ak di inventé na nga war a gérer suuf. loi domaine national ku ne xam nga ko. leer na nañ yeneen texte tout kon comme dañ ko war a saytu. waaye ci intérêt wu. askan wi ko dëkkee. maa ngi koy fàttali sama bopp man. diko fatali fàttali élu yëpp sama mbokk maire yi. Hmm. xam naa ne ca lañ nekk. Hmm. waaye ñu gën ci def vigilance maanaam li xew. Hmm. alerte laa ko tuddee maanaam. bu doon ku nekk si ginnaaw it corona la. pire pour nga bàyyi xel ni. am na. lu war a ñëw lu war a ñëw. man loolu laay njëkk wax. d'accord beneen bi. ma wax nag ni. nañu def attention. ci lu jëm ci conceptu. agro business. parce que man mënu dugg ci cas yëpp. parce que mhm. xaw ma cas yëpp. mais mhm. cas bii teew moom. Mhm. mooy ndengaleer man am naa ci point de mooy lan. sama gis-gis mooy. béykatu ndengaleer. mbéy. doom kese rek. moo tax ñu naan bu kenn laal suñu suuf. parce que. Mhm. moom mooy seen activité économique principale. Mhm. maanaam seen yëngu. yëngu-yëngu wala ndeyu. Mhm. seen yëngu. yëngu moom la. la ëpp ci seen yaakaar. ci wàllu koom-koom bu ñu dundee. dundal ci seen njaboot mënu cee suqaliku. ci mbéy moom lañ ko yaakaar. mais mbéy moomu daaw la. dafa war a soppiku. soppeeku si pour mu jëriñ dëkk si nan y compris jëriñ leen ñoom hmm. il faut mbéy moom soppi mënuñoo continuer di béyee na maam doon béyee hmm. mbéy war a tudd doon affaire u hmm. borom nga jégal ma wax ji waxin bi borom caay bu xotteeku borom bu non mbéy léegi dafa taxawaayam dafa soppeeku mbéy ñuy jëriñ dëkk

dëgg sama wolof nag leeru waaye pour man li mu tekki mooy mm-hmm. mbay mm-hmm. affaire u ku ñàkk pexe la mm-hmm. wala mbay amul solo wala sanction la nag dañ koy yokk ci négative dina est-ce que noonu la war a continuer demee tey dañ la war wax ne boo demee ba am sa doctorat da ngay béy dellu béy comme ni nga koy defee yow waxin la nekku néew ma

kon ànd nga si. waaw tout à fait waaye ci naka. Mm-hmm. attention ci mm-hmm. naka laa ci àndee. Mm-hmm. te moo tax ma rafetlu loolu. félicité président de la république. ministre yi ci jàpp yëpp ah, ministre Aly Ngouille Ndiaye. ministre Karim Fofana. ñoom kilifa yi nga xam ne yëpp dox nañ ci. ñu ngi leen di félicité mais jaaraama président la république ci sagesse. bi mu ànd. ba jël mesure bu mel nii te foofu laay ñëw. dama jàpp ne diir boobu. diiru nawet bi. dafa war a nekk période. pour waxtaanee. pour waxtaan. diggante béykatu Ndingler. ak Babacar Ngom. avec arbitrage gu. nguur gi ci naka. wax naa léegi ne mbéy mi dañ ko war a soppi. Hmm. di nga bu waa di nga béy lu gën a tuuti. Hmm. am lu gën a bari. Hmm. mu gën a am jarte. kon boo doon def fukki hectare. xëy na hectare rek. réglé na la problème boobu. jëlee horticulture c' est pas parce que dama ko yore. Mhm. damay jox rek euh, mhm. euh, exemple. Mhm. ñun suñu hectare wecce na daanaka fukki hectare bu nawet. waaw parce que benn nga def ci ñaar fukki tonnes ak juróom. wala fanweeri tonnes trente tonnes. ci benn xeetu mbay. kilo ci mbay moomu. boo ci jël moo ëpp njëkk gerte. moo ëpp suuna basi mboq ñebbe. mooy sur le plan rentabilité moom moo gën a kii. moo ëpp rendement. Mhm. moo ëpp njarte te moom ko def aussi ay yoon ci at mi. d' accord te ñoom bi. Mhm. après fii ak lay dikkaat. Mhm. waaw ndax jàppoon nañ daaw de. en tout cas na waxtaan ak ñoom. bañ na ko. waxul ne neen la fa def man bi ma dégg ñu ne arme na maanaam Assane Mbaye hmm. dama cee kontaan hmm. mais na ko defee nii ci sama xalaat na hmm. waaw na waxtaan ak ñoom am nañu modèle bu def loolu li ma lay wax ni lu ñuy inventé projet bi ñuy wax Pédidas xam na fële ca Saint côté Saint-Louis mais demal c'est l'occasion ñu félicité encore ministre de l'agriculture professeur Baldé ci taxawaay ak coppite yu bees yi mu ci indi. bi mu jotee ministère bi ndokkeel aussi suñu jigéen

Mmh. dina ko mën a équiper. Mmh. xëy ndox amu fa ci pour noor. Mmh. mu def fa ndox mu doy pour mbéyum noor. d'accord équipe matériel. tracteur ak jiwukaay bi ni may. mën faa jafe. waxuma mu jox leen ku nekk. mais matériel yëpp fay indi. dinañ mën def ay prestations. di defal kon xam nga li leen yomb li leen suuf si. maanaam liggéey suuf si ba mu jëriñ leen. jafe woon na leen. jafe na leen sax ba fu nekk nii. ndax bëgg na maa ngi soog gis ci noor yeeg. ou yeeg yooyu. di soog a dugg ci tool yi. mais loolu. yeneen jumtukaay. Hmm. ak yeneen xeetu bu mënoon na ko remplacer. te buñ collaboré ak moom. Hmm. gëm naa ni. Hmm. loolu mën na nekk jeexul débariwul. Euh, daw na parce que bu leen dungalee bu ñu aménagé ko. dañ leen ne du produire. xam xam mbéy mi. li ñuy wax transfert de technologie. ou transfert de connaissance. savoir ak savoir-faire bi mu nar a def ci biir toolam ba mu mën na culturer. dina fa bëgg a génnee. dina fa mën a génnee dugg ci seen tool yi ñoom. bu ko defee ñawañ gi dina yokkit ci ñoom mm-hmm. Mm-hmm. ndax li ñu dend ak Babacar kon am nañ suuf suñu aménagé mm-hmm. am nañ xam-xam yu mbéy bu bees kon dinañ mën a produire waaw buñ produire ñu koy def dañ ko nar a jaay Babacar li mu nar a def ko daf ko nar a jaay mu jënd ci ñoom ñu booloo ñoom ñu jaay ko li ñuy produire dëgg bu ko defee ñoom dinañ gis seen bopp parce lépp demul te li ci des doy na

agriculture moderne bi nga ne. wara jëriñ dëgg-dëgg ne yi. na loolu tax ma la. Hmm. man dama gëm ni. Hmm. waxtaan. Hmm. heureusement buntu dafa continuer. mais ci arrangement bu parce que souci aussi di ko xool rek. sama pour le plaisir. suñu lool. suñu la. loolu du rek la affaire bi attention. budul tay di maanaam jël suuf ci tek ci loxo. Hmm. Di rek la mën a durer. mais mënul sax de. Hmm. gis nga 2050. mille cinquante. Hmm. dina nekk neuf milliards doomu aadama. c'est-à-dire li ñu war a joxe li ñu joxe. moo daanaka war nañoo doubler. li réew àdduna di produire léegi. sinon àdduna dina xiif. te fi may jeexale ci point boobu. mooy nee nañu Afrique. mooy saafara bi. sinon. réew àdduna dina xiif. kon xam nga djema a dëppoog jamono. Mhm. jéem a ubbeeku ci façon bu bu xale mhm. ànd ak nit ñi liggéey moo des. waaye jël suuf si ci tank mhm. ne ken du ko liggéey ndax amu moyen ci ken du ko laal. loolu man gëm naa ne du la doon solution. d'accord bu bu bu ko ni djema tay du wéy bés a ngi ñëw loolu dina tege ko kon nak nañu ànd. ci bir ay mbokk. jappalante ci diggante ki am doole ak ki néew doole. bokku nek gis sa bopp. te man jëm naa ne loolu lu mën a la. Euh, te te te li dama gëm ko ci kaw Babacar hmm. mooy loolu la miinal sénégalais yëpp hmm. fukki sénégalais yoo jël hmm. jomi ay la yëwén xamuñ ni mu demee lii nañ fexe réglé ko mais Babacar mii patriote la ku baax la ku baax la liggéeykat la ku gëm réew mi la ku liggéey réew mi la man su ma doon def sondage comme yow man loolu laa yëg kon boromam nit war naa mën a déggoo ak man loolu laa jàpp D'accord. Docteur, docteur nañu waxtaan ah nañu waxtaan s'en biir parce que guerre yëpp ci table de négociation yi la ñu jeexee alors dinañu permettre docteur ñu aborder beneen sujet mooy euh, ñoo ngi ci approche tabaski tabaski ku ko wax di nga wax xar waaye tamit di nga wax li nga xamante ni moom mooy accompagner xar bi euh, te séeréer yi bëgg ko lool sa sa sa genre yi ñu sant Diouf ak Fay euh, mooy pomme de terre bi ak soble bi tey jii est-ce que ban assurance ngay defal séeréer yi sa mbokk séeréer yi wala population sénégalaise bi par rapport ak approvisionnement bi ci veille de fête bi nga xamante ni moom lañ nekk en tout cas li mu ci jaaxal rek mooy. ab tukulóor moo ko laaj. loolu moo ko ci jaaxal. tukulóor moo ko laaj séeréer. jaaxal nañu ci lu sant ba. kon xam naa ne moom la gën a ñor kon boo ko defee daaw de. d'accord lu am solo xam nga ci légumes yi. ñuy gën a hmm. soxla ci wàllu. Hmm. fête yu mel ni tabaski. wala tey. Hmm. wala gàmmu yeeg màggal yeeg yooyu. soble ak pomme de terre dañ cee ëpp. doole. yaa def na sutura. ak gis-gis bu leer. bu président Macky Sall. ak jàppaleem. Hmm. tey ñaar yooyu boo ci jël. Hmm. liñ ci soxla ci réew mi. Hmm. li ñuy produit li ñuy ñor la ci loolu. ëpp na suñu soxla. tey jii waaw. kon ça veut dire que marché bi moom ça sera bien approvisionné. tout à fait pour jox la ci preuve. tey juróom-ñetti weer ci fukk ñaar. bu soble. soble Sénégal la dundee. te gel bi. ñu ngi ko defoon côté février. Hmm. kon février bo ci tegee juróom-ñetti weer. Hmm. kon xam nga ni génn guñu hmm. fu soble wara a kon soble am nga jël pomme de terre. juróom-ñeenti weer ci fukk ak ñaar. pomme de terre bu Sénégal lañuy dundé bo boo dàqee diggante février ak légui kon génn bo ci tegee juróom ñeent ñeenti weer. kon xam nga di dese nga ñaar bu ñetti weer yo xamné pomme de terre dina amaat. ci pomme de terre bu Sénégal lay doon. kon li ma bëgg a dellu suuf. Mhm. mooy. Mhm. pomme de terre am na soble am na te lépp fii la ñoree. du am rupture ragaloo rupture. comme loolu nag am na ci jàppale président de la République. Mhm. pour production ren bi def daa mën a ëpp dix milliards waaye yeesu ko. ci jàppale ñooñu ko ñorle. mooy béykat yi. diggante engrais. jiw pomme de terre. ndimbal li. ci wàllu dund dem ci jën mhm. matériel agricole. Mhm. boo ci yokkee matériel agricole sax daanaka yaa ngi war a yegg ci ay douze ba quinze milliards. d'accord parce que matériel agricole bi ma la wax ne. Mhm. maye na ko bu yàggul. valeur bi presque cinq milliards la te la ca ëpp. matériel horticole la kon xam nga mënoo jël lu diggante diggante douze ba quinze milliards. foo ko jëlee laa biir la. xol bu rafet moo la ko def loo am yërmande ci béykat yi. ak gëm na Sénégal yi ci ëpp ñoom li ci wàllu mbéy la ñuy yëngu. Mhm. wala ci lii meññee ci mbéy nga dooleel mbéy loolu tax nga def ko. je mhm. parle du président mhm. moom moo ko def mais kan moo tax mu def ko mooy sénégalais yëpp. mooy. ki koy béy. gis ci boppam. jërëjëf kiy jaay engrais jiw ak yu ni may. gis ci boppam kiy jaay matériel d'irrigation. gis ci boppam ñor bi transporteur bi. Mm-hmm. gis ci boppam commerçant de gros bi grossiste bi. Mm-hmm. gis ci boppam. Mm-hmm. kii def détail. gis ci boppam soxna si dëkk ak yow castor wala derk lay waxin la. nga xam ne table am lay def ca koñ ba. dem jënd ay légumes di jaay. bu ci gisoon dina xam nga du def. kon ko xam ko même kooku ngay jëriñ.

foofu laay. man kon dañ ko war a yombal nga bëgg a wax. Mhm. dañ ko war a yombal waxuma ne nag. dafa war a yomb. dañ ko war a yombal ak dañ ko war a wanteer nag. Mhm. bokkut bokkut. waaye ku nekk ci ñun. Mhm. xam nga lu ñu maanaam la preuve. fixé nañ prix yi. boo jëlee pomme de terre mu ngi nekk deux cent trois cent vingt fii ci euh, Diamniadio. parce que am na fi am froid bu fukki junniy tonnes. yoo nga xam ne ñi euh, indi euh, wala kii bi. agro business bi dese pomme de terre. am na fi chambre froide maanaam bërëb dencukaay bu fukki junniy tonne fii ci Diamniadio boo fee dee foofu nga jëndee hmm. trois cent vingt nga ko jëndee kilo maximum trois cent vingt hmm. mais loolu xam nga lu ñu xam la ARM hmm. topp ko juboo ci ak moom ñu fixé ko mais kon léegi mu mu dese nga jële ko fa yóbbu ko yaa xam foo koy yóbbu ci biir Sénégal marge yi ci wàllu transport yi xam nañu ko nga yokk ci transport boo ci paree nga yokk ci li nga xam ne mooy sa dafa war a am limite. Mm-hmm. foofu nag laay ñëw. Mm-hmm. maanaam warut a xaabaabal. kon ñooñu war nañ cee gis seen bopp ñoom commerçant yi. Mm-hmm. man ànd naa ci. mais li ma àndul. mooy ñuy lor. askan wi askan wi. ci xaabaabal ci yokk bàncay yokk ndax rek. ki la te tabaski nekk waxtu moo xam ne waxtu yërmande la. waxtu jàppalante la war a doon. waxtu jaamu yàlla la. absolument war nga ci am nag loolu mais waruloo ci indi. lor. comme ni diine waxee ne. laa daraara wala diraara. bul lo lore. waaye bul nangu si kenn lor la. kon ñun. ñu ngi waxee ci côté consommateur yi. kon du ñu nangu. ku lor consommateur yi. ñu bëgg nag service yi dañ ci. taxaw bu baax. man gouvernement. ministère du commerce. ñaare wàllum jënd ak jaay tout à fait ARM. directeur commerce intérieur. ñoom ñëpp d'ailleurs mosuñ cee ñàkk taxaw c'est l'occasion ñu félicité leen bu baax ñoom Amadou Abdou Si ak Ousmane mhm. Mbaye mhm. vraiment ñu ngi rafetlu mhm. seen liggéey surtout que ñu ngi koy def en équipe ak ñun waa agriculture en tout cas ñu ngi liggéey ak ñoom liggéey bu rafet ñu ñu bëgg ñi kon fexe ba prix war a xaabaabal comme du sama liggéey nag mënuma sori ci côté prix yi mais wax naa daal prix yi ñu fixé te ministère du commerce am na marge yu mu autorisé. Mhm. kon amna niveau yu prix yi ta passer passé. Mhm. dale ko fi gën a jege. Mhm. fi ñu koy produire ba fi gën a. sori sori. ñu bëgg prix yooyu. ñu respecter ko. d'accord jàpp naa ni diggante 375 cent euh, soixante quinze. maximum. dem ba côté 400 francs. te vraiment day fekk mu. bari ba bari lool.

damay fàttali ne soble bi am ci jamono bi moy hmm. sablé duggu nawet d'accord et ben gox rek lañ koy défé hmm. muy potu hmm. té ñom nekkul ndoxum euh, fleuve bi la utiliser ñom ay séan la def wala ay forage am ay moto pompe maanaam daal ndox bi rek énergie bi rek amna na bu mu leen di dik kon li soble di dik fii ci ñaay côté poto ñu ni mel mo upp li muy dikk fële ci vallée du fleuve ñom amatu ñu soble ñu seen soble jeex kon lolu moo tax mu wax li mu wax wax ni. loolu mën naa am ba du xaabaabal du ci am. ba ku nekk gis ci bopp kon ñu ngi dalal xel yi ci ni. ñaari légumes yooyu. ak yeneen légumes sax mais comme ñaari yooyu ñoo ci gën am solo ci wàllu tabaski bi. dina am. te bu ñëpp defee li ñu war def. wàccoog seen taxawaay prix bi du xaabaabal kon sénégalais yëpp nañ ko jot di ñaan bu sûr jégal ma. d'accord yàlla may yegg ci jàmm. passé. d'accord d'accord d' d'accord ñun Dakar euh, entretien du jour euh, ñoo ngi le docteur Macoumba Diouf moom directeur général bu horticulture waaye le euh, docteur Macoumba Diouf un casquette politique parce que il est le maire de la Latmingué alors nous avons ci politique situation politique du docteur puisque maire est également militant le parti Alliance pour la République alors euh, docteur nous sommes coordinateur national du comité chargé des intrants en matière agricole nekkoon nga ko alors nous euh, dégg koo révélation ni ci na ñuy jiw bi engrais bi nan nga révélation révélations d'abord apporter comme élément de preuve docteur euh, da élément de preuve ce serait trop fort Mais ma je lii la benn mm-hmm. système bu ma xam la mm-hmm. yàgg nga ci waaw ndax yàlla dogal na 2006 mm-hmm. fa muy jeexee dugg 2007 te loolu nga teg ci yeneen ñaar presque wala ñetti at man géré loolu ci Sénégal yëpp bëri doxalin

amoon porte mhm. ca jamono yooyu. Mhm. mu doon président Alioune mhm. li may wax bëri na ay seede. li mu bëgg wax foofu rek mooy. kon bañ ko organiser. du tey ci kay. du tey. du tey non vraiment yàgg na mu des. wax naa ko ci benn rajo fan yële. ndax ñu ko war a saytu yëpp. te am ci wàll. ñu ngi def.

commission bi a recevoir recep commission de ci biir commission bi dafa am. Hmm. nga recevoir jiw yu hmm. ngeen nangu ko quand même retourné wu ko. Hmm. kan bëgg. mu ñëw changé leen jiw boobu. d'accord au delà de ça docteur ak kii mu indi jiw. mu indi xaalis. mais yéen bu ngeen xeexul lool. et puis yëglu ca kaw. mais kan ngeen bëgg aussi mu réglé ko. kon na ayant droit yi nga xam ne ñoo tax. jàppale boobu jóg. Hmm. ñu taxaw aussi taxawaay bu wér. pour que lii nguur gi wax ne noonu la war a doxee. Hmm. mu doxee noonu sinon bu amee ay manquement da ciy bëri nag. Hmm. xam ne ñu ngi ko mën a imputé. ñi nga xam ne ñoo nekk ci ci gox yooyu ba ma ñëwee nag ci yi nga wax ne li nit ñi gi rek yooyu. man loolu mënu ma ci nekk témoin parce que ump na ma d' abord. géré loolu.

nit war a jikkoo mm. ci société mm. ak nu mu mën a nekkee waaw ko mm-hmm. euh, Sénégalais yi xam valeur yooyu yëpp certainement ànd nañu ak yow ak man mm-hmm. ñaawlu mm-hmm. comportement yooyu loolu moom def naa duru nit mën a miim alors mais d'abord da ngay jàpp ne mbooloo na partie de masse te quand même affaire mooy parti bi gën a mag. Mhm. bi ëpp doole. Mhm. ci Sénégal. mais loolu nga jàpp. loolu mooy li am. d'accord loolu amul sax werante. d'accord parce que. Mhm. élection yi passé moo ko wane. xëy na wéetuñ ci woon. d'accord amoon nañ ci ay alliés. d'accord c'est l'occasion d'ailleurs ma njukkal leen. remercier leen. ci fidélité bi ci ànd bi président de la République waaye. Mhm. li ma gëm. Mhm. mooy APR actionnaire bu mag. Mhm. wala boog mooy actionnaire bi gëna a mag. bu do mën naa koo waxee noonu. ci euh, mobilisation. boobu nga xamné ne Sénégal yu nek nekk. daanaka juróom ben fukki yi. wax nañu président waaw. té mu jaar ci. coalition boobu loolu la gëm kon parti bo xamné ne dafa bari fu mbooloo dajé nit ñi wuté fa nga mëna gis. lu nekk du tax man ma rafetlu lool. jàpp ne manque de leadership la. si biir parti bi dañoo dañoo manqué responsable boo xam ne. ma aussi parti. Nekul daayira. dëgg waxin na dëgg dëgg. maanaam. daayira rek. boo xam ñu gis-gis. ñoo am ku leen doy ñu jiital ko. ànd ak di pour que gis-gis booba doon yoon pour askan mën jëriñu.

pour nga ne. kenn du fi defee lii. Mm. du yomb ay sart rek nga mën a tëddal. Mm. Mm. ku ko fi defee. nga ne ko kon bokkatoo. ci ñun. te matuwaay yooyu. moom la parti bi def bu yàggul. mais vraiment kenn mënu koo euh, euh, jiiñ. parti bi. kenn mënu koo jiiñ. njiitu parti bi. kenn mënu koo jiiñ comme ni nga ko waxee léegi. affaire leadership maanaam problème suñu njiit wala yooyu non. loolu loolu. daanaka. nekkul damaa bëgg wax ne. fu nekk lañ koy fekk. te du loolu laa bëgg wax. le politique wala le bu politique sax te bokkin bi. Mhm. demee noonu. Mhm. mën nga faire fekk yu demee non, mhm. waaye nag non, gëm mooy dafa a dàkk. d'accord ndax nekkul image maanaam Natal bi gëna taru hmm bu ñu war a wone ñu askanu Sénégal dama jàpp ne. lu fi jaaroon la rek. war na fee yem te gëm naa dina fi yem. nit ñi délo si xel hmm jubóoyo ci li gëna am solo. moy liggéeyal askan d'accord moy à ce def ko ci ginaaw président de la nga est nak hmm. Sénégalais yi. Hmm. wax hmm. mom kon ñun ñëpp. dañ mission bi kon honneur la ci ñun. manam sag la. ci ñun. ci ñu am occasion ko ci Sénégalais yi moi kon waccu honneur mo xam nak fu ci xam ci technique ci bi. xam

ay la hmm. miin nga ko miin naa ko hmm. adresse bi ko ñëpp jox mooy hmm. mag la li tax ma ne mag la li ma ci nar teg moo tax mooy ku yar la d'accord pourtant yar ci xale lañ ko doon gën di tudd di ko seetlu d'accord mais mag la te yàlla d'accord euh, ku ko gis di nga ko jox cër di nga ko respecté ndax jikkoom ndax comportement ni mu yëgee doomu adama ni mu fonkee nit ak daal ci gàttal yaram. yaram mm-hmm. léppam ci biir. est-ce que waaw ku ba ànd ak nit. d'accord monsieur Njiit. dafa war a doon sa royuwaay. Mm-hmm. bu nekkee sa royuwaay bokk na ci ci jikko. Mm-hmm. nga war a fexe jàmbaarteem ko. rafetalam ànd ak askan nga jël ko. maanaam copier ci moom. pour niru ko ndax dama jàpp ne ñiy ànd. aussi loolu bokk na ci li ñu jëriñante mooy. dañoo war a. di rayante. ci ci ci rawatina ci jikko. d' accord docteur temps bi moo ñu xoj rek waaye mënoon nañu wax lu bëree bëri ah surtout si seen parti bi. ñàkk structuration bobu tax te ñuy naan ki moy doon candidat ki moy doon candidat waye man euh, docteur dama la bëgg a interpeller ci ben ben mbir moy ben déclaration bo xamné ne ministre d'État def nako ko lu yàggut dara euh na dañoo wara a dem ci à des élections présidentielles anticipées yo xamanteni 2022 lañ koy amal té président Macky Sall duñ ko ci bolé parce que mom lajj na ba pare woné na que ni moom lajj na dal anticiper daal taxawal benen gouvernement

ah déet ko tëb ba di ko jox solo. nit bu nit bu taxawee ne nañ taxawal gouvernement. bu bees anticipé parce que ki fi nekk laaj na. xëy na yaa war a laaj. mais vraiment il faut que laaj nga xëy na sax xëy na sax après tontul la. moom mooy kan kooku wax ba war a mën a waxal sénégalais. ancien ministre d'état Habib Sy. waaw ma ne. ban mandat. la am pour waxal sénégalais yi. ba naan.

ci biti la ñuy waxee nii rek. Hmm. waaye ba nit ñoo xam ne buñ duggee ci néeg. Hmm. pàcc la ñuy def wala leneen wax. peut am nga si idée loolu loolu ngay wax. <laughs> non man loolu laa gëm. d'accord parce que joxuma benn crédibilité. Hmm. kàddu bu mel nii kàddu yooyu. nga daan dafa lajj. ne yaa ngi koy wax ci turu askan wi. naan nañu ko def peut-être si turu boppam la ko def. en tant que acteur politique aussi. élection anticipée. Oh, waaw mais yow nekk trop démocrate sax yaa ngi bëgg a loxo suñu constitution. Hmm. te nag loolu ci responsable bu niveau boobu. Hmm. yaakaaroon naa ne wax boobu. Hmm. dina du génn ci benn responsable. waaye gën na maa bett. mu jëgg gën génne ci gémmiñu. Euh, jàppoon ne lu taxawaay bi gën ah, jàppoon lu ma bett la parce que wax boobu. vraiment ay la yoon nga jéggal ma ci wax ji mais amul bopp. mais mais mais yaakaaroo war nañ xalaat aussi war nañ gën a xoolaat kaddu yooyu mu yëkkati. mais liñ ci war a xoolaat ñu xoolaat bu baax euh, lu muy wax. liñ ci war a xoolaat ñu analyser ko génnee ci solo bi. liñ ci war a xoolaat bañ ko jëlee nii rek ah. non benn solo amu ci. ah bon docteur amul leen ñu ci jël bu dee idée wu ni ñu war a tëralee élection yi di ñëw nag. Hmm. loolu mën nañ cee wax. Hmm. xam nga tànn boobu d'ailleurs wax boobu nga xam ne ñu ko yëg.

programme euh, n'est-ce pas de de de résilience. Mm-hmm. économique et sociale. Mm-hmm. parce que am na plan bi président yi muy mille milliards yi. Mm-hmm. am na parce que mbir mi daf koo phasé ndax moom gis-gisam macha allah. am na aussi. ren muy plan. yéen daal yéen a ngi si programme rek yéen daal nekk leen di teg ay plan rek. mais mais nekk leen di teg plan rek. plan yi ñu jëmmal waaw moo jëlee Sénégal fa mu ko jëlee. yegg si ko fi mu ko yëgee. kon jaaraama plan yooyu. rawatina plan Sénégal plan la ci plan yi d' ndax yoon mi nga xam ne moo ñu war a yóbbu ci suqaliku bu jolli. Hmm. ay la yéwén ñoo nga ca woon. ay na Covid bi. Hmm. yegg si nañ pour teggi loolu suñu tànk tuuti rek. Hmm. waaye gis nga ne président xalaat na. xalaat loo gouvernement am ci delluwaat ci d'abord wàññi. taraayu Covid. ci suñu koom-koom ak suñu réew. waaye gaaw a delloowaat. dox ak doxalinu réew mi. ci raay yi mu nekkoon jëm ci émergence. d' accord euh, wax ci.

D'accord. la docteur Makumba Diouf gërëm nañ la santé, la surtout si disponibilité bi contexte bi ñu nekk c'était pas voilà c'était pas possible voilà n'écoutons lu yomb mais faciliter le ñu ko. jërëjëf Daouda aussi ñu gërëm leen delloo leen qui, ak ci le fait ngeen jox ñu occasion euh, tombe. Mm-hmm. yu am solo yi jëm ci doxalinu réew mi ak doxinu. Mm-hmm. réew ku rek xam nga ne seen buumu jokkukaay. Mhm. ci buumu jokkukaay yi gën a am solo ci réew mi la bokk. ci àdduna bi. Mhm. ngeen jox ñu occasion ñu addu ci dox doxin ak doxalinu euh, réew mi ci tolluwaay bi ñu nekk ci ay euh, tomb yu am solo yu mel ni ñu fi dund ñu leen di ñu fi dund. ñu leen di gërëm di leen sant ci occasion bu ngeen ñu jox. merci di leen féliciter encore ci liggéey bi. Mhm. di leen ñaanal yéen ak sénégalais yëpp euh, tabaski jàmm. merci. internet Dakaractu ñu jox leen dig daje fii ak ay fan yu néew rek comme ni ko waxee docteur Macoumba di leen ñaanal tabaski jàmm jër ngeen jëf.